ñaanub murit walla ñaanub donga baax na ci sëriñ ndax xol la koy ñaane te am nañu yàlla rus mas namaa dégg baay sàmm mbay mu wax ni am na ñoo xam ne bu ñëwoon suñu boroom bu bis ci taxaw bis pinc du taxaw mukk ndax rus gu leen yàlla rus ba noppi nëbb ko jaam yi te ñooñu ñu ngi ci biir taalibe sëñ Tuubaa yi kon ku mën a ñaan na ñaan ku mën a wax dara na ko wax ku mën a def leneen sax gas suul lépp na ko def na fi sëñ bi yàgg rek na wér liggéeyam bii muy liggéeyal sëñ Tuubaa na ko yeggale bu ko ko kenn defal na ko yeggaleel boppam rek barab bii nag ñu toog at mu ne ma wax ko pas-pas biñ ci njëkk a jiital ngir dalal seen xel yéen ñi fiy bokk ñu fiy fanaan di fanaanee dundal xasaay ji ba suba ku fi dugg na nga sant bu baax ndax liñ fiy njëkk a jiital mooy ku aajoom nërta faju bu mu dugg ci kër gi loolu moom at mu ne moom lañuy jiital ci liggéey bi ku aajoom nërul la faju bu mu fi dugg na teggi rek nag yàllaa ngi ñu ciy suturaal ajo ju ne fajoo fi barab bi ginnaaw loolu ñu ngi leen di sant bu baax ndax jëf ju ne am na jërëjëf ku sañ jëf ñu war laa sant sëñ Abdou Lahad nee na woon jëf boo ko séqee sa moroomu gor te dara warula ca lu dul jërëjëf nee na sas woo wërta booy kon jërë ngeen jëf yéen ñépp wax naa ko démb ci bëccëg fii ni nu waay sonne ci soxna jaara moom xamal na ko boppam bu kenn def ngir kenn bu kenn def ngir dara na ñépp def ngir soxna jaara moom daal mooy ki nga xam ni xam na lépp te mu ngi jàkkaarlook lépp moom soxna jaara li Cheikh Mouhamadul Mountakha waxoon ni képp koo xam ni yaa ngi dugg ci sëñ Touba na la sëñ bi tax a jóg boo fi duggee balaa nga wax ak kenn waxal ak moom bu sa ajo boo doxee sa ajo ci moom ba noppi fooy dem doog faa dem waaye soxna jaare mii itam ku fi jëm si na la tax a jóg sa pas-pas na nga ko jëmale ci moom na nga na nga jëmale sa yaakaar ci moom booy ñaan ñaanal ci moom ndax man na ko te déggoo na ak boroomam Seexul Xaddim mii ñu amul ku dul moom moo nu ko wan soxna jaara man na kanamam man gannaawam wax nañ ko fii démb bi sëñ bi nekk ci néegum ndakaaru bii bu xat bii sëñ bee waxal boppam ne soxna jaara fekk na ko fa jàpp ci ay waggam génne ko ni ko doxal liggéey ñii mënuñu laa yàqal te boobu soxna saa ngi fii poroxaan waxaat nañ ko ni sëñ jéeri bi mu nelawee soxna jaare ñëw na ca duggoo ba ca denc ba sëñ bee ko wax sëñ bu buso ni ko mbàkke ndax gis nga fa sa bàjjan mu ne ko ah yooyu gëdde mbàkke awma ko mu ne ko sa bàjjan ñëwoon na ca duggoo ba ne ko xam nga lu waral mu ñëw fa mu ne ko déedéet mu ne ko soxna si daa def ko fonk wëllëre ndax jiitu ma fiy ñëw ku soxna si am bu dee ku sëñ jéeri am bu dee góor mu tuddee ma ko bu dee jigéen mu tuddee ko soxna si ni ko wëllëre woowu la soxna si doon mottali si am na ñoo xam ne ba léegi ñi ngi gis soxna jaar jeex ren te soxna jaar bi ñibbisee fii ak tey jii téeméeri at la ak juróom fukk ak nàngam ak juróom ñaar kon nag kooku man na kanamam man gannaawam sëñ Alaaji Baara daana wax ni jëm ci soxna jaara di fa yóbbu benn soxla ñàkk koo xam la soxna jaara ku fay dem da ngay dajale la nga am ci soxla lépp yóbbu ko boo demee xëpp ko ko ñoo ñoo xam soxna jaara ba bi muy doon xalif général di murit bi ñu waxee jéggal nañ la poroxaan dañu mukk moom ak mage nekkal fi dara du ko tax mu am ngànt ba du ñëw ci soxna jaara kon nag kii nu am ku ko dégg fii nu taxaw ba ca màkk ga ca màddina nga wax ko waaye jigéen ju ñuy màggalee nii di màbb wet gu di la wuysee nii moom rek la ko yàlla defal waaw soxna ami seex moom sëñ Tuubaa sëtam bu baax ba dani ko woon soxna jaare yaa jare kañ mun mu ko waxee ni sa bis bi mel na ni aj réew yépp ay wàbb di ñëw ngir jaaratullah loolu la ko waxoon waaw waaye mel na ni réew yépp ay wàbb di ñëw ngir moom rek kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di bànneexoo wettali gii ngeen ànd ak noonu ñu nu wettali ci kër gi ak coono yi ngeen fi jànkoonteel xam ngeen ni poroxaan dara dara mu yombut ñi fi ñëw ñépp ku fi am trois heures boo ko xoolee dootoo ko xàmmee ndax pënd na tàng na lu baree ngi fi waaye kii fi tëdd nag la mu am bànneex mayu ko mayu ko ko woon ñëw fi woon sax ngir loolu dafay ñëw lii dab ko fi rek ñu bàyyi ko fi waaye 2016 la suufu Poroxaan jeexoon tàkk te ay jamono boo fi bëggee ab juróomi junni lañ laaj wala ñeenti junni muy ñeenti borne yu borne bu na junni tey jii terrain yaa ngi fi jar cinq million six millions ba dix millions am na fi am na ñu koy jaay sax vingt millions suufu su poroxaan jeex na jeex dëkk yi mu wër wër poroxaan maye nañ suuf si balaal seen suufu su tool yi ñu ànd ñëw ci Cheikh Mouhamadul Muntaka di ko kalaami si ni ko ñii joxe suuf si joxe nañ balaal sunu suuf si ñu bëggoon nga wax ci mu woo ña ko yor ba ñëw mu ni leen nañ leen delloo seen suuf te waxtaan ak ñoom ba déggook ñoom lu ñu jox ci suuf suñu boole ko ci suuf si Poroxaan waaye bu kenn jël suuf si jàmbur kon soxna jaara ab liggéeyam nangu na hmm? euh, Poroxaan tukkulóor a ngi nii Poroxaan nangam dëkk yi sës fii yëpp suufu Poroxaan nangu na leen ni nga xamee ni suuf si Touba dëkk bu mu dendal nangu na ko xam ngeen ni Touba dëkk yu ko wër yëpp bokk nañ ci tuubaa léegi. loolu mooy poroxaan gi ku gudd fan danga fekk poroxaan gi mel ni Paris kii fi tëdd rekk ko waral kon nag ku yàlla boole ci moom te sëñ Moustapha Bassir waxoon na ko nit ñi liggéeyal soxna jaara moo leen di tànnal boppam waaye du kum neex nga liggéeyal ko comme ku yàlla taw féexale ngay liggéeyal soxna jaar na nga sant bu baax na gërëm bu baax na nga xam ne am nga taw féex barki démb sëñ mun taxaa wax na ma ko fii ci këram gi mu ñëw di ko nuyu du ko fàttali siyaar bi ñu ko war a siyaaree suba mu ni ma lii ngeen am tawféex rekk leen ko may ndax ku ku amul tawféex du ko xam ba di ci jëf kon nag dangeen xam ni liggéeyal soxna jaara du njàmbaar mooy li ma waxoon léegi ndimbal rek la sëñ Moussa Maani mi dëkk mi dëkk ak ñun ci kër gi nga xam ne buñ demee moom lañ fi bàyyi mooy saytu kër gi moo gi yaayam ak soxnaam ñu ngi leen di sant bu baax li tax ñu di sant mooy buñ fi jógee ba bañ fiy dellu si kër gi mënoo fee forbant dañ koy setal di ko toppatoo dëkk ci kër gi yaakaar naa ni bu ñu amoon seen kër yi bopp sax mënuñu koo fonkee nu raw ni ñu fonke fii lu yàqu duma ci xaar da koy defar ba noppi donc maa boo ni ma nàngam yàqu woon na fi defar naa ko kon nag sant nañ ko bu baax ndax bu loolu amul woon dañuy wut ko fi ne mbaa ñu tëj ko bu ñu waree màggal si ñëw di ko bayloo di ko setal nag nekk waaye fi mu ne waxtu wu la soobee jóge fu la neex ñëw tëdd fi lépp set kon ñu ngi leen di sant bu baax leen gërëm coono yi ngeen fii daj yépp yàlla nañu ko soxna jaara fay <clears throat> xam ngeen ni ren jii dañoo jotoon ndigal ci wut ay mat matelas naam biñ koy jot sax xaw naa yéex